alors euh, Djeva ñu ngi lay nuyu ginnaaw bu ñu la ndokkeelee bu baax a baax ci album bi nga xam ne génn nga ko sénégalais yi yu bëri nag déglu nañ ko ñu ngi koy apprécier et tout ban appréciation nga def ci li ñu mel. ba kontaan bu baax a baax je pense que depuis ba mu génnee démb ci guddi donc j'ai reçu plein de message Yeah. Euh, gars yi vraiment laaj nañ sama ni demee nañ bu baax a baax di euh, streamer lañ ci doon xaar quoi te gis naa ni vraiment gars yi accepté nañ sama ni quoi. d' accord gars yi def nañu reportage euh, laaj Sénégalais yi mais nag li ñuy laaj ci dëgg-dëgg mooy Jeeba kan moo koy bindal. waaw Jeeba mooy bindal mooy defal lépp boppam mooy bindal boppam. mooy waaw mooy mooy loolu quoi waaw. na ko def dañ ko tegee à waaw non xam nga comme ni ma ko yàgg a wax rek tu vois musique loo étape par étape la dans la vie donc man comme ma leen ko waxee donc talent écriture tu vois donc c'est quelque chose boo xamante peut-être yàlla may na ma ko yàlla may na ma ko donc je chantais des chansons d'amour donc loo xamante ne ma fiil ko lu ma fiil rek laa doon génne donc c'est un album donc aussi tamit j'ai voulu xam nga def ay wan sénégalais quoi yeneen facette de Djiba Djiba gis na yeneen yeneen facette peut-être album bi benn affaire la bu ndaw ci facette de Djiba peut yeneen affaire tamit on aura d'autres d'autres trucs quoi waaw. album bi ñaata titres. album 13 titres. waaw. waaw bëri na bëri na je pense. oui j'adore trop j'adore Do Changer un son qui s'appelle Do Changer donc j'adore cette alaaji aussi j'adore alaaji xam nga waaye j'adore alaaji bëri na quoi sànni su ma koy lim waaye alaaji pour ñun la quoi xam nga gars yi dañu wax pour jigéen ñi rek la ñu baax di woyal comme ku ne album rek album moom c'est pas quelque chose de facile donc surtout quand tu es un jeune encore en même temps tu vois tu bosses pour pour yow quoi tu vois donc Djiba il fait de l'autoproduction moom mooy moom mooy produire boppam ak propre structure structure bu mu créer donc c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident mais comme lu ñu koy wax rek tu vois donc musique mën na lépp quoi tout le temps loolu laay wax musique mën na lépp donc c'est un travail boo xamante ne que j'ai débuté depuis 2017. xam nga ba tey donc plaisir la tey ma génne sama propre album jox ko Sénégalais tamit gis naa ne retour yi ma ci jot a amagum pour l'instant donc c'est c'est une fierté quoi fierté bu mag a mag la pour man. d'accord nga génn benn album bu 13 titres Sénégalais yi bëgg ko naam alaaji bi neex na. mais sa dëkk Thiès. alors son boobu noonu inspiration bi naka la demee. Bah Thiès c'est ma région avant dara donc euh, fier encore comme ni ma ko waxee fier d'être xam nga nitu Thiès. Mhm. xam nga donc euh, bëri parfois xam nga rek artiste tout yu bëree bëri bëri mhm. donc comme Djiba des chansons d'amour Djiba lii est que Thiès sax la dëkk parce qu'on le voit pas et tout ça. Mhm. donc après j'ai voulu juste montrer que man je suis un Thiès quoi. Ah, <laughs> donc c'est un plaisir tey. dem représenter Thiès tu vois un artiste boo xamante ne la jógee ñëw fi Dakar tu vois mhm. donc wane ni man kat fii laa joge fii mooy sama base fii mooy sama fierté fii mooy sama lépp moo tax j'ai fait un dédicace ci album bi la chanson Thiès. d'accord Djeba nee nañ jigéen ñi kese lay mu génn benn son itam tuddee ko Alaaji. waaw waaw waaye Alaaji nee naa la comme album album da ngay essayer déglu critique yëpp yëpp yëpp après essayer def ko sa album quoi tu vois. Mhm. critique yu positif yu négatif yi yëpp yëpp yëpp nga ngay jël yëpp après xool nan laa ko mën xam nga ku ne kontaan quoi donc parce que gars yi il disait tout le temps Djiba est-ce que newul jigéen ñi rek lay woyal et là je me suis dit donc way Sadio Mané comme euh, moom c'est une fierté quoi Sadio Mané nit la boo xamante ne tey képp kuy sénégalais rek képp koo xamante ne tey commencé nga rek tu vois ba dara dul dara rek kooku euh, référence la ci yow quoi parce que man tout le temps c'est un exemple pour man parce que tey nit bu jógee nit bu jógee Thiès laa ñëw xam nga ba dara quoi musique ak zéro ba tey génn sa propre album di defar say propre business donc fierté la Sadio Mané aussi tamit seet si naa ko ba Galem Bambali e la je vis waa ji fu mu jógee ba tey fu mu àgg donc juste pour montrer que ni loolu tout est possible dans la vie. waaw mais xalaat bi fan lay jógee xalaat yi. <laughs> voilà inspiration man bind bi man mooy sama problème. waaw mais xalaat bi nee naa yàlla mooy maye quoi tu vois tout le temps je reçois beaucoup de ci loolu Djiba kan mooy bindal Djiba mais man maay bindal sama bop donc yàlla moom mooy may nit quoi comme xaan peut-être may na ma ci côté écriture. may bind donc sant yàlla quoi waaye. d'accord mais ci album bi da nga delloo aussi njukkal Haalpulaar yi. waaye tu sais comme lu ma wax rek album da ngay déglu ah, boo nekkee artiste da ngay déglu lépp critique positive ak négative yëpp tu vois man je suis un Peul fier d'être un Peul comme xam papa Peul yaay Peul et di laax encore Peul donc je me suis dit man Peul laa donc sama album su may demee bay def album faaw ma rendre hommage. pulaar tu vois faa mu rendre hommage aussi tamit Debbo Pulo mooy jigéenu Pulo boo xamante ne tey moo ma jur moo jur ñeneen ak ñeneen donc tam moo tax ma rendre hommage. pour rendre euh, album bi surtout sur le plan international. oui on est entré parce que on a débuté sax on a débuté parce que boo xoolee album featuring yi tu vois pratiquement donc featuring su ci sous région bi la muy Mali muy Guinée muy Mauritanie donc pour man la base c'est comme ça donc essayer sa musique am benn ouverture donc tey boo demee Mali ni ñu ngi déglu Alamé tey boo de boo demee Mauritanie ñu ngi déglu Debbo Pulo boo demee Guinée aussi tamit pareil ñu ngi dég dégg yeneen donc après loolu mooy tax xam nga affaire bi nekk international quoi. pourquoi choix bi Khadim ami encore aussi tamit ba ma defee son bi mu nekk benn son bu xaw a réew et tout ça xam ma Khadim Temps bi style am réewal de boobu noonu neex ma xam ma ma ne bii faa ma invité ci Khadim après il est ma mu def ci benn affaire bu nice quoi. Aladji c'est Aladjiba Aladjiba comme ngeen da koy defee à la telle personne à la telle ça c'est Aladjiba parce que tey boo déggee style musique bi boo déggee voix yi boo déggee lépp tu vois ko dégg feneen quoi ci nga koy déggee. Ah. moo tax ma ne style bi à la Djiba. d' accord mais <laughs> gis nañu jeune bi na warul xaar di benn yoon champion. way ouais, noonu la parce que sama parcours rek laa doon essayer d'écrire tu vois boo xamante ne da nga jógee foo xamante ne mu metti woon bu baax a baax baax parce que y avait absolument rien du tout pour nga am sax loo fay studio c'était tout un problème xam nga tey tey ba yàlla sant yàlla tey yaa ngi génne say propre album ak say propre moyen donc loolu juste pour montrer bépp jeune nag bu nekk ci musique bu nekk ci lu mu mënti doon rek gëmal ni ça c'est possible tout est possible quand tu nga liggéey tout est possible donc moo tax champion ma dégleel ko vraiment champion fin d'année bi lan nga ñuy waajal mooy ñi nga xamante dañ lay bàyyi xel di la topp am na ay concert wala ay affaires yoo xamante wala ay tournée internationale a a on a deux dates ah, pour l'instant on a on a le 31 décembre stade Ngalandou Diouf mais actuellement on est en train avec l'équipe pour benn tournée boo xam ne c'est tournée régionale boo xam ne dañuy sillonner Gambie war nañ dugg Mali tournée boo xamante ne aussi tamit ci ci sous région bi la bu ñu paree aussi tamit on est en train de caler avec des des des producteurs des des des des gens qui book donc euh, pour pour pour pour pour des sorties des sorties internationales donc on est en train là donc bu Anto rek yéen ñëpp di ngeen ko yëg quoi. merci vraiment waaw merci beaucoup prof Sétier. mais mais Fall sëñ Séti nga. merci frérot merci. c'est un frère merci beaucoup.